stop mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. kuréel 28 ñaar fukk ak juróom-ñett di ay kilifa yu mag yu nekk ci biir yoonu murit ak ay taalibe ñooy am mbégte di leen yëgal point de presse bu ñuy amal samdi bii di ñëw bu juróom waxtu jotee ci ngoon di di h ci kër Serigne Touba gi nekk ci Daaru Marnaan point de presse bi nag ñeel déclaration bi nga xam ne Cheikh Omar Diagne def na ko jëmee ko ci yoonu murit mbokk yi kuréel ñaar fukk ak juróom-ñett di ko yëgal presse bi ne ci Sénégal gépp rawatina presse en ligne bi nekk Touba ak télévision yi ak press écrit bi ak nag rajo yi bàyyiwuñ ci kenn samedi lay doon 17h ci kër Serigne Touba gi nekk daru Marnaan muy point de presse kuréel ñaar fukk ak juróom-ñett di ko amal di ay kilifa yu mag yu nekk ci biir Touba ak li ko wër kon bu ko kenn tardé.